may wax parent yi mooy na mati ak ñi mbokkal liggéey bi li ñuy def làmbaatuwuñ ko ndax liggéey ñaara ci nekk dañoo tuddee fond ak formu yenn saay yi nga gis ñoo xamante ni dañu yor bërëb bu taaru bu accueillant def publicité bu baax def marketing bu baax waaye fond ba ca biir du doon loolu mu am ñoo xam dañuy am fond bu baax nga xam ne ñii lañ def mën nañ ko waaye malheureusement nag organisation bu baax lañu dul am du jëriñ waaye nag ku yàlla wërsëgal nga am ñaar yooyu yëpp da nga ci war a jàpp moo de dina mbir mi tabaarakallaahu xëy na ndaw na ci bët nii waaye organisation bi yëkkati na ko ci niveau boo xam te ni kenn mënu ko dépassé dax ma wax loolu mooy dañuy jëflante maak moom à distance nag su ma juumalee salaa la première fois ñu gisee gise gise xàmmente gise xàmmente pour wan la ni la mbaax kenn du ko nat ndax kuy jox cër te fekk jëflante leen xam nga ni kooku séentuwu ci moom dara sama dërëm mësul dem ci moom sama relation mësul dem ci moom kon soxna Mati tudde tuddewu ma bis bi ngir am lu mu yaakaar déedéet waaye dafa am lu mu gis naw ko te man yëguma ko di ko bégee di ko topp di ko ñaan ba yàlla may ko occasion mu jëmmal ko mooy à travers suñ jëmm ji liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey à côté ànd ceeg njaboot gu baax gi sëñ Alioune dina ci ñëw may ñaan man tam man maa koy ñaan ngeen tàccul ma leen sama njaboot gi waaw ñoom itam tabaarakallaa ñu ànd ceeg man à travers loolu mu jëmmal lii Les meilleurs wax parents yi mooy ni may jëflanteeg moom yëg naa ne def ko la la mais ku xam la te monsieur Diaw c'est vrai que ce loolu li indi mooy dañoo xaw a te ñàkk organisation mais catu franco arabe ñaare qualité parce que da nga gis xam ni man mii dama koy na certificat parce que am un collège mais pour nga natt ñaar yëpp am ci satisfaction te très difficile yenn saa yi arabe bi dana mais français bi mooy loolu su demee sixième da ngay am problème tous les problèmes du monde am ñoo xam ne mën naa am seen français baax na mais arabe bi mooy mais fexe nag ba tabaarakallahu jël un directeur d'expérience boo xam ne vécu jaar na fu bëree bëree bëree bëri nga xam tey niveau bu kawe la nekk ku xal lim bii xam ne pour nga téye personnel da ngay sacrifié wu mais amoo ci dara dara dara dara dara mais jar na ko nga kon un dexpérience d'expérience jëflanteeg moom moom it mu gëm ni lii ab waar la jihaad la mu nangu ko parce que su doon fayee ko tey ay diplôme am wala tolluwaayam mën na am soxna ma ci du ko mën a jël du ko mën waaye xam na ni waar wi tabaarakallaahu ca la bokk soxna Mati damay jëflante ak moom ci wàllu jàng ak jàngale mais dama gis ne ku exigeante la ci qualité dafa exigeante ci qualité loolu nag tabaarakallaahu damay wax ne défaut ci yenn saay yenn école yi donte sax alhamdulilah mi ngi gën a changé mi ngi gën a changé kon parents yi dama leen di wax ni fii nga indi seen doom fii la li may ñaan kay mooy mébét yeeg naal yi yàlla na ko yàlla gën a yaatal ba nga xam te ne wax dëgg yàlla dana am complexe boppam bërëb bu yaatu boo xam ne li mu yéene ci éducation dana mën a jàll ndax fii mu nekk ni kat ñun li ñu soxla mooy ku ñu sauver njaboot gi te sauvetage bi tabaarakallaahu ci nii rek la mën a demee kon parents yi ma encourager leen bu baax a baax a yàlla bañ daaw fala mu dil la wa man yudil fala hadila la wa salatu wa ala ashraf mursalin sayyidina wa habibina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen ndokkeel ci bis bu màgg bii muy bis bu màgg ci weer wu màgg ah ci nit ñu màgg bis bu màgg la ndax bisu alxuraan la weer wu màgg la weeru alxuraan la nit ñu màgg lañu mooy jàngalekati alxuraan ñu fi daje ah man nag naru ma won a jël parole bu fekkoon di sëñ Basiiru mi nga xam mooy kilifa jataay bi joxuma won parole waaye comme moom nee na moom du wax te ma toog fii ah li ko arab di waxee rek a dororaat tubéewul ma zoraat loolu moo ma tax may wax soxna Mati nag kii gan ñi ñi ko xamul ñi nga xam ne dakaar lañ ko xame xëy na mën na leen a jaaxal mais ñun mënuñu jaaxal ndax way juram bi nga xam ni moo ñu yar moo ñu jàngal alxuraan moo ñu jàngal fiq malik jàngal nu naxwu ba ci alfiya ibnu malik xam nañu mooy kan te xam nañu aussi taxawaayam ca réew ma ndax bu demee ba daaraam waa kër Cheikh El Hadj si nekk fa yaroo fa ba mokkale fa alxuraan waa kër Serigne Touba nekk fa ba yàlla dogal képp koo xam ni kilifa diine nga ca réew ma sa doom moom nga ko doon confier moo ko jàngal dama bañ a guddal waaye mën naa ci joxe ay ay a doy waar sax ndax dem nañu ba nit ku xam ni ay taalubeem xamuñu nu mu toll taxaw ci kanami taalubeem te bokkuñu tariixa mu di mu wàkk ci boo kër maam Cheikh Ahmadou Bamba ni taalubeem yi bu ma fi bu ma góor gi bu fekkente ne maa ko jëkk a génn àddina na ma góor gi taxaw loolu kenn mësu ko gis te yàlla mayoon nag ko yàlla dogal moom ba mu ba nu xàmmee nun tàbbi ci loxoom ba nin génne dem bitim réew jàngi ba nin ñibbisiwaate musuñoo musul changé jàngaleeg jàng la ma sa xam jéemul lenn ci àddina dul jàngaleeg jàng te loolu daf ko doon ci way juróom way juróom doon ko ci way juróom donc loolu moo jur daara ji tey kon daara ji du asaar lu yàlla def la mu jóge ca maam ya ba yegsi fii tey kon bu ci góor góorloo fu mu ko bëgg a yeggale yàlla ba na ko fa eggale ndax ndono la mu mel ni nag sant gi ñu koy jëmale moom duñ ko sant dañ koy encouragé di ko ñaanal dañ koy encouragé di ko ñaanal li mu nekk mu gën a dëgër mu gën cee xóot mbooloo mi fi teew ñun lañuy sant waa waa quartier bi ameel nañu sant soxna Mati ndax bu fekkente ni ab taal daa tàkk ci biiru quartier bu lëndëm ba ñépp gis ca seen di ca jaaru di ca togg di ca li ca leerlu ñoom war nañ ko gërëm ab école leer la ci biirub quartier waxuma école buy jàngale diine kon école bii du école mati do école daara do écolub Abdoulaye Amar sen école la yéen waa quartier bi na ngeen ci japp waye contant na nak dogu gi ngeen am ak pas-pas bi ngeen am ñew ñëpp fi teufi. manki wul ma sha allah Wow, jigen ñi nak mom, vraiment mention spécial waaw li mom dal na xel ndax jigen moy yar gor comme yéen nag am ngeen dogug ñëw fii jël seeni doom comme fi yéeg ko ba pare jël seen bët teg ci école bi école bi ngir yàlla seen école la jàpp leen ci na ngeen fexe ba école bi ca kanam ca kanam ca kanam bu ko defee lu nekk mën na fee génne ëllëg fii bëgg nañu ñu naan ah président la république kat ci école bi la génne na ngeen ci góorgóorlu te loolu dañ koy ñaan barke ba nag bu ngeen góor góorgóorlu noonu di ngeen ko ci am a ah, kilifa yii fi teew nag. mu imam Moustapha Thiam di imam Souleymane Diagne ak mboolem kilifa yi ndax duma ko lim ñu ngi leen di gërëm ngërëm gu amul àpp ndax it woyof gi ñu am ba dagg seeni yitte te jamono bi ni mu demee ak koor ni mu xate ak li ñu yor ci ay tafsir alxuraan ak leneen ak leneen ñun ñu xam ko ñu bàyyi loola ñëw fii toog ñu ngi leen di gërëm a ah, ñii nga xam ni ñooy mbokki eh, soxna mati di waate waawoon ñii dagg seeni yitte ñëw toog te def ci moom loo xam ni kenn dootu ko mën a dindi ñi ngi leen di sant di sant nijaayam ji toog di sa nga xam ni lu xew moo fay jëkk moo fay mujj muy sëñ Madiab Touré mi di sant ñépp ñi fi teew di beral cant nag spécial wax dëgg yàlla muy kii nga xam ni nun noo ko dénkoon muy sunu rakk waaye ñoo jëloon mati dénk ko ko muy def mu ciy góor góorlu di ca def lam man ba yàlla dogal mu jàppale ko ba mu yegg si fii mu yegg si kon ñu ngi gërëm ñëpp ci gàttal daal lii yàlla bu ci cat dugg yal na ni yàlla nangul maa ngi jox imaam nag mu euh, mu defal nu ñaan bismillah alhamdulilah jërëjëf kon nag ñu bokk teewlu ñun ñëpp rek xale yi dama bëgg ngeen def bokk ci ñaan gi yéen ñëpp yéen ñëpp ngeen mokkal alquran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 وسرها ونورها وبركاتها وسمراتها وإخلاصها فاقبل عبادتي وأحتم لي خاتمة آمين يا رب العالمين بجاه نبيك الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على النبي وعليهم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 سن لخيتك وعلى النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا